أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا رحبت تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منيل الارتقاء بشرت يا ربيع كل ذي التقى يا ظرف نور واصطفاء وانتقاء يا من حبانا بالذي لم يخلق نظيره وأبدا لن يخلق عليك أحمد الذي قد أطلق كلي لوجهه ولست مملقا mbokk taalibe yi maa ngi leen di ziyaar bu baax di leen nuyu di am mbégte bu baax ci tàmbaliwaat jataay yi nga xam ne jataay yonente bi la alayhi salaatu wasalaam di jataay si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu di sant yàlla bu baax mi nu may daaw nu defoon ko reen it ñu fekkewaat ko amuk tal ba mën koo defaat ñoo ngi ñaan yàlla tawfiq jëm na ci mayoon daaw mu mayaat nu ko ren ci jotaay yi te nangu lépp te bégal ci sëriñ bi te defal na ci ngeen ji fay ak ngeen ji xewal ak ngërëmam lu màgg li nga xam ne moom lay joxe jaamam ña ko ñam sopp yomb na ko ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu lañ koy ñaane loolu ma njëkk a fàttali rek ne jataay bi itam li tax ñu koy def mooy xam ngeen dañ daa def alxames beneen waxtaan yéen nañ bàyyi koon dañ jël alxames bu ne dañ daa waxtaan ci jataay yoo xam ne ñu ko tuddee jataayu murit ginnaaw buñ jàngi xasida waxtaane téere suñu matla bi ne nañ génn fii salaamaaleykum aleykum salaam daaw nag ñu xalaatoon buñ agsee ci bis bis yii nii ñu boole ci fan yi yëpp nu màggal ko fan yu jëkk yi dundale ko weer wi taasoo ko ci barkeb sëriñ bi nga xam ne moom weer wépp la daa dundal sëriñ Tuubaa ku ne xam ne ne weer wépp la daa dundal ñu ne ko ci biir waxam lu bare bari bokk na ci xasida koo xam ne kon dañ jàng nañ ko fii xëy na mooy li mu wax ne daani ila ihya ida shahri kawnuhu li xayril wara zarfan xawa kulla sudadi mooy li tax may màggal weer wi yëpp moo di ne yónnante bi alayhi salaatu salaam da cee feeñ moo tax may màggal weer wi kon suñ weer wi ci boom la daa màggal weer wi itam mosu ko yemale wenn weer bu masaa ñëw day wax ne mboolem sama wéradi far na wér ngir weer wi dikk na weeru gàmm sama tàyyeel it jeex na ndax weeru gàmm dikk na yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasali loolu la daa wax da ko daa itam beral ay xasida yi boppam gàmm gu ne ak xasida yam cay def yii da ko koy teeroo yii mu di ko ko tàggoo xasida gi ma jàng ak diwaan bi mu nekk yépp boo gisee ci rabiul awal la ko def mooy weer wi am na ci yoo xam da ko tëggee da ko tënkee lii rabiul awal mooy rabi gàmm maa ko moom kon nag fonk gi ko suñ bi fonkoon loolu rek moonu jañse ci nuñ koy jéem a màggal ci anam gi mooy waxtaanewaat jaar-jaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak diggam ak sëriñ bi di ko def bis bi ne ni ngeen ko xam ne neuf heures lañ koy tàmbali ñuy sàkk ñëpp ñu teel koy ñu teel a ñëw ba dix heures bu soobee yàlla bu ko dee itam ni ñu koy tàmbalee gis ngeen alxuraan la ñu jiital ay aayaat ci alxuraan teg ci ay aw aw ak xasida ndax muqaddamatul am ndax ku ne xam ne ay xasida yu bari lañu boole loolu mooy wax ji gën a wér daanaka ci wax ji lépp lépp bu dajee den doon genn xasida waaye lu ci ne fukki waaye ak ñaar la yoo xam ne mat na xasida boobu bu ko dee loolu lañ ko tàmbali ak yeneen xasida yi ci mën a topp ak njàng mi koy jiitu nga xam ne moom mooy kuréel bi nga xam ne moom la gone yi di def dañ ci sant bu baax loolu lañ koy tàmbalee def waxtaan wi jeexale ko xam ngeen alxuraan moom Sëriñ Tuubaa daa wax ne moom sama mbira daa wax ne awrasanillahu kitaaballahi yàlla ci boobu moo ko moo ko jox alxuraan muy ndonom daa wax sax ne diini kitaabul Mustafa la gayru maanaam jenn diina la muy alxuraan bi noonu la ko daa wax itam ci yonte bi diine xidmatu diine xidmatu nabil muxtaar yi maanaam loolu wax na ko bare maanaam alxuraan ak yonente bi alayhi salaam suñu tooam daa jàppoon ni seex ko kenn moo tax yooyu lañ koy tàmbalee di ko ci màggale ma njëkk wax itam ni de jataay yi ginnaaw dañ koy def di ci dàkk bëggu sëñ bi man dama jàpp ne bëggu sëñ Tuubaa ku koy dàkk ci yonente bi alayhi salaatu salaam di nga ca fekk sëñ bi ndax sëñ Tuubaa xam ngeen ne yonente bi moom moo doon léppam da koo tegoon foo xam ni tegu fa leneen bëggoon na ko bëgg goo xam ni itam monsieur fu gis bëggu tol noonu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ma koy waxee lu bare bare bari boo seetloo lépp Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa daa jël léppam def ko addee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam danaa wax ni jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil Mustafa babi niam jumlatu mali mooy mboolem lu ma am wa midaadi wal qalam ba ci daa yi may bind ak xalima yi lépp def naa ko hadiyatun lil Mustafa man hadiy Mustafa la wax na itam ne juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan maanaam jox naa ko tey sama ruux ak sama yaram moom Sayyidina Muhammad wa waladi wa walidayya fil alam jox naa ko samay doom sama njaboot ak samay waajur addiya xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xulóoli ramsi jox naa ko sama liggéey addiya lépp lu ma jëf rek ci liggéey addiya Mustafa la alayhi salaatu wasalaam sama bakkanu bopp jox naa ko addiya min saati ila xulóoli ramsi maanaam waxtu yi laa ko defee ba keroog may may dugg sama bàmmeel mboolem kër yi mu am it noonu la ko joxe ak bërëb yi mu am yépp da ko wax ne laka yaa nabiyu manazili wa mawaqini wa mawaadii laka bil ali mutaawisa yow yonente bi jox naa la samay kër manazili wa mawaqini mooy bërëb yi nga xam ne falaa cosaanoo loolu lañ loolu jublu ci mawtin foofu mooy kajoor bool yépp jox naa la ko addee wa mawaadii maanaam ma mawdi moo gën a tuuti manzil moo gën a tuuti maw mawtin mooy bërëb lu ma fu ma fu ma nekku ndiir sax diir ba ma fa def ak bërëb ba yépp jox na la ko addiya yow Moustapha alayhi salaatu wasalaam ba ci yëg-yëg yi muy am da ko joxoon addiya wax shawqi wa wuddi wa mahabbati maan li man jalalan wa jamaa wa jamaalan jamaa maanaam sama cofeel shawq ak nammeel ak bëgg a gisee bi may bëgg a gisee muy loolu ñu ak nammel men loolu jox naa ko addiya Moustapha nga xam ne moom rek laay bëgg gis moom rek laay namm moom rek laay yàkkamte yàkkamte taseeg moom wa wut yi mooy cofeel ak bëgg wudd ba tey bokkut ak mahabbatu ay ay ay ay ay ay ay maanaale yu wuute mahabba mooy bëgg gu ndaw guy màgg di màgg bu dee ba ca dayo ba lañ koy tudde li ñuy wax ishq ci ci arab loolu it bu dee bu day màgg di màgg bu dee ba ca dayo ba am weneen tur wu ñu wax xuyaam wudd itam ci xeeti bëgg yooyu lay lay misaal xeeti bëgg yooyu yëpp nag mu ne jox naa ko addiya maanaam mboolem la sama bëgg sama xol xajuluma ci leneen lu ma yónente bi alayhi salaatu salaam ak lu yónente bu bëgg ba ci ay cëram da ko daan lim benn par benn moom suñ bi lakka lisaani sama làmmiñ jox naa la ko maxal janaa ni xol bi jox naa la ko noonu la ko limee cër yëpp boo seetloo ba ci ba ci nosu boppam zimaamil yow ma jaaltuhu abad fii yeddi ahmar sabab nos jox naa la ko addiya ba ci ab ak dem ak dikk dox bi ak dikk bi yëpp daal fii ka dahabi fii ka iyaabi masan sama dox ci yow laa jëm lépp ci def naa ko addiya maanaam da ngay gis ne Sëñ Tuubaa amut lu kawe yonente bi alayhi salaam maanaam moom lu teg ci ci li gën a kawe ci mbiram dina àgg sax ci def lépp mu dig njotug yonente bi xam wax na ni fadaytuhu law kaana yufda bi demi wala bu fekkoon kuñ mën a jot la moom yonente bi xam ngeen jot mooy masalan mën naa ko misaal sayidna ibrahim xam ngeen ne bi mu waree rey doomam ja ismail sayidna ismail alayhim assalaam yàlla daa wàcc am xar mu nekk njotu ismail nga xam ne xar mi xar mi moo remplacé mu wuutu ismail loolu ñu tudde ak njot mooy su bu dee ba dee taxaw ba dee taxaw di genn man jekk naa ngir dee te yonte bi moom des alayhi salaatu wasalaam maanaam lo- loolu loolu la la wax mu ne bu fe- bu ne nag bu fekkoon ne kuñ mën a jot la dinaa ko jote sama dereti bopp wa bi lisaani wa yadi wa qadami fadaytuhu law kaana yufda bi dami wa bi lisaani wa yadi wa qadami bu doon kuñ mën a jote dinaa ko jote sama dereti bopp ak sama làmmiñ ak samay loxo ak sama ndëkk mooy sama kàttan gépp dinaa ko def ci moom ak moom mu des fi di dund te man ma jeexal ko ci ci yoonam ak lu koy doleel àgg na sax wax ne dami si daa un li xuróoji dami yi maanaam sama dereti bopp ak njot la ci ci dereti yonente bi alayhi salaatu salaam wa maradi fi daa u daa i jismihi maanaam ak wérdi itam sama wérdi yëpp jote naa ko wérdi gu nar a dal yonente bi maanaam bu wérdi taxawee yàlla na tegg yonente bi te ñëw ci man dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada maanaam sama deret ak sama waa kër ak sama njaboot yépp ak njot lañ ci yonente bi mooy jekk nañ ci jeex takk ak dee ba jeex takk ci yoonu yonente bi alayhi salaatu salaam ak la mu bëgg parce que boo ko bëgg du lu ndaw mu man moo tax wax tuuti may wax rek mosuma gis ku bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam ni ko suñ tubaab bëggee coono bu mos a am ci adduna itam bëgg yonte bee ko ko teg gis nga dund dundam gi coono yi ci am muy tubaab yi jël ko génne ko gis moom da ko misaal ci wenn bayit rek mooy li mu wax ne xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu lmadihu qasiru maanaam sama kër yëpp wéet na mooy jamono ñu ko génnee di ko fa nañ yóbbu ko fa bërëb yi mu sañcoon yëpp gent tubaab moo ci jiitu tubaab bërki démb la dund lu ba ni fi suñu jógee ay armée rek fa nekkoon daanaka ñu daan denc nit bërëb yi ñu sancoon yëpp a gent mbooloo mi tasaaroo doom yi tasaaroo njaboot gépp tasaaroo fu ñu dem ñu dàq leen ba ni ma ko waxee lu bare bari suñ suñ seeli wax ko suñ suñ suñ xalit ne am na at moo xam ne ci ci mu sàq la borom daaru fan fanaan ak njaboot bi maanaam booba mooy ñu leen woom ñoom mag ñi ñu ñu bokk benn dëkk maanaam dem fexe ba tasaare leen mel na mag mu ne nekk ci bërëb sore sa morom ñu teqale leen ci ci ci duñ bokk benn ndax jàppoon nañ buñ bokkee benn bërëb la sëñ bi daa def yoon wi dafa ne ba tey sëñ bi nag loolu la wax kusóor yi xalat wala ahlu an nii tafarraqat mais sama njaboot gi tàqali na tàqalikoo na ma ak ñoom ci ak tooñ mooy jekki-jekki jàpp nit génn ko dëkkam ak réewam yóbbu ko loo xam ne adduna kenn mësu ko man foofu la li ñuy wax ñàkk justice foofu la foofu la yem ilayow di loolu kenn mënu ko justifier maanaam nit ku la defut dara waxu defut li sëñ Mbàkke bu soo wax ne mu wax ne suñu mbokk bi dafa wax ne dafa wax ne kam sibyatin wa dawatir xidri daa'iatun bi faqdi bi nafyi sayxin wa lam yafal wa lam yuridi maanaam njaboot gi nit ñi tumuranke ni ay gone yu bari tumuranke ak ay soxna ay jigéen kam sibyatin wa dawatir xidri daa yaxatu ñoom ñëpp sànku nañ tumuranke nañ bii naf yi sayxin ci ci génn gi ñu génn sëñ bi te sëñ bi lam yafaal wala mu yurit maanaam jëfut waxut moom bi bi mu daal dem ci géej gi bind na tubaab bi ne ko man ne leen man adduna si ngeen sàkk man soxlawuma ko man yàlla mee wut yéen bëggu leen ko kon mën na noo bañ a jote maa ngi waaye teewul ñu jàpp ko coono biñ ko teg yëpp te loolu lépp na suñu doo wax ne li matxi alladi anhu almadihu qasiru maanaam liggéey gi may liggéeyal yonente bi alayhi salaam ak tag gi ma koy tag ci la ko yàlla nattoo loolu lépp kon suñ tuwaawam ci képp ku ku koy ku koy dàkk ci jataay yonente bi alayhi yàlla na yàlla taas ci barkeem